amee internet des a TV gannaaw bañ leen nuyoo di leen daa jox seen wàccuwaay comme niñ koy uh, defee saa su nekk tey nag uh, mën nañu ne dañuy génn phénomène uh, politique at lépp lu ci lal day dugg ci wàllum société tey ñu daal di mën nañu ne sax waxtaanee ci li nga xam ne rek gis nañ ko nemmeeku nañ ko bu événement jotee rawatina nag bu ñu nee 15 août dañuy gis que ne xale yi dañuy daal di génn di di di ñu ko si waxatee di béggee comme niñ koy defee. at bu jot mais nag chaque fois dañuy gis que ne day indi ay njeexital ndaxte dañuy gis chaque fois que day am euh, li nga xam ne rek moom mooy ay vidéo le motif yoo xam ne day daal di génn euh, ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi moo nag tax tey nag ñu daal di toog ngir daal di ci euh, waxtaane donc ma ci ànd at mën nañu ne sama maman waaye it itam moom mi nga xam ne à chaque fois rek lépp loo xam ne da koy wax day jëriñ askan wi muy maman Maguette Diop madame Ndiaye ni tey moom la dalal bàyyi ko mu dal di nuyonteeg mbokk internet yi madame Ndiaye nuyu nañ la. Euh, waaw ma chérie Sary maa ngi lay delloo nuyoo. di am contenté ci invitation bi mu invité fii ci 2A TV. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, di la wax ni nag euh, fa tubaarikàlla macha allah ñi ngi am mbégte. Mm-hmm. ñëw ci émission bi. tey am mbégte it euh, di répondre ci say questions. merci beaucoup merci ma comme ni ko waxee woon li nga xam ne rek gis nañu ko bu événement jotee rawatina 15 août bu ñu nee 15 nag chaque fois sénégalais yi dañuy xaar que ni vidéo dina génn le motif. ñu ñu koy tuddee le gis nañ ko à chaque fois à chaque am euh, ñu koy génnee ci réseaux sociaux yi mu doon phénomène boo xam ne dafa doon loo xam dafa habituel euh, ci askan wi ñu jàpp ne lu baax la alors que day lor ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def d'abord lan ngay wax ci vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def di yàq doomu aadama yi. Euh, waaw Sali mm-hmm. xam nga tey Sénégal moo yàqu. Mm-hmm. fa tubaarikàlla da ngay gis xale boo xam ni yaam yar na ko fi mu ko war a yaree. Mm-hmm. jox ko bu baax. mais façade bi mu lay wan ci biir kër gi du bokk ak bu génnee li mu lay wan ci biti <laughs> euh, quinze août léegi jël nañ ko def ko loo xam ni euh, suñu mbokk chrétien yi nga xam ni pour ñoom la sax <laughs> euh, ñoom suñu xale yi nga xam ne ay ay musulman lañ liñ ciy def ñoom concept boobu maanaam mm-hmm. turu 15 août bi. Mm-hmm. taxul woon loolu am. Mm-hmm. dem nañ ci ba léegi sax dañuy dañ koy waxee de eh, eh, eh, màggalu xaw ma gàmmu Blowman yi. Blowman su ma juumul. xam nga loolu du lu rafet tam. te tam xale yu góor ak ay xale yu jigéen di dem ci ay appartement dafa def na ko su dul noonu dafa def loo xam ne fa tubaarikàlla yow tey sa yaay vidéo bu bu fuitee. loolu mën na cee ñàkk bakkanam wala mu feebar ci feebar boo xam ni kenn du xam. moo ngi noonu daal moo ngi mm-hmm. noonu jéggi na doyo jéggi na dajoo mm-hmm. sali euh, loolu daal doon na loo xam ni suñ ci amee ay taxawu mm-hmm. ah, euh, ba loo xam ni tey jii appartement yi xale yi di dem wala wala wala wala euh, kii yi ñuy dem comment dirais-je Euh, soirée euh, soirée yi ñuy dem mhm. dafa def ay naka sudul noonu bu fekkee daal euh, gouvernement mën nañu ci jàppale mhm. ah def ci loo xam ni fa tubaarikàlla xale yi dinañ mën a quinze août bu jotee kon ko ñoom quinze août rek lañ ko bàkk mhm. ñu jël ay matuwaay yoo xam ni fépp foo xam ni demukaay la ñu jël fa ay précaution teg fa ay nit ay gardien wala ay ay ay ay homme de comment dirais-je de loi homme de loi yoo xam ne dinañ mën a surveiller dina ci baax trop waaw ndox loolu daal wax dëgg yàlla du lu rafet daal du lu rafet mais mhm. est-ce que est-ce que est loolu aussi tamit état bi mën mhm. euh, gis nañu xale yi bu ñu koy def mhm. day fekk ñu loué appartement comme niñ koy defee chaque jour loué appartement nekk ci biir di photo di vidéo euh, bu ñu demee ba gis loolu gis ay xale yu jigéen la ñuy gis ñu leen di ñuy ñuy ñuy génnee seeni seeni awra wa ilaa ñuy ñuy euh, utiliser loo xam ne tey jii nii mën nañu ne bokkul at seen éducation te boo demee seeni kër da gis que ne ñoom dañoo bokk ci famille bu baax bokk ci am ay parents yoo xam ne duñu ñu siggi sax xool nit mais en général seen doom yi ñoom ñooy dem de telle sorte que ne boo leen gisee ci réseaux sociaux yow sa bopp da ngay ruus ban lan la ñu war a mën a apporter ban solution la ñu mën a indi teg ko ci ngir rek li ni mel euh, du amati waaw euh, Sali xam nga nag euh, jafe na loolu xale bi nga xam ni ci biir kër gi amaana sax xale waa kooku est-ce que tey di nga imaginer kii war naa mën a génn ci mbedd mi ba xelam di xalaat di dugg ci appartement di tëjoo góor bay def leneen loo xam ne naka su dul noonu loo xam ne yow yow muy kilifaam sax. Mhm. amoo xel boobu. xam nga tamit euh, kooku euh, surveiller ko day daal di jafe. Mhm. Euh, parce que tamit ñun ay parent lañ ñun sax mënuñu gàdd suñu bopp mais dañuy def la maximum. Mhm. yàllaa yor ñëpp yàllaay sàmm. mais nag euh, xëy na li ma ci gis loo xam ni solution la. Mhm. ci sama xalaat bu gàtt. Euh, bu date yooyu jotee. Mhm. parce que ñoom xëy na euh, façon yooyu xëy na ci dat boobu lañ xalaat ni ci lañ koy def. mais est-ce que mbir yi si date boobu lay lay lay xewee. waaw ma chérie parce que boo gisee toujours xam nga sànq da ma posé si ca biir question. Mhm. nga ne ma toujours quinze août bu jotee nit ñaa ngi xaar le motif. le motif. xam nga yeneen dat yi wala yeneen fête yi doo dégg le mm-hmm. mais ci euh, ci euh, date boobu rek muy 15 août. ci la nit ñi di xaar lomotif ah xëy na xale yaa ngi pare def lomotif mm-hmm. xëy na ci date boobu nag heure bu jotee ñuy xëy na sensibilise xale yi ku ci am sa doom bu la tàggoo ci jour boobu mm-hmm. ah, ci sama xalaat bu gàtt nga téye ko ci biir kër gi <laughs> ah, xëy na loolu mu ci xalaat nga téye ko ci biir kër gi nga ko ci biir kër gi <laughs> ah, xëy na ba sur le lan le surlendemain bi euh, bu la tàggoo nga mën koo bàyyi. ndax tamit xale yi ñoo leen jur ah. mais seen xel yi ñoo ñu sut. seen xel fa mu egg yow seen yaay sa bos eggu fa. parce que mën nañ la tàggu damay dem fii damay dem sama kër tante damay dem sama kër bàjjan foofu ñu la tàggu bu ñu demee danañ fa dem de mais kooku lañ koy tàggu ba génn doo ko xam. parce que kooku tamit danaan kii yaayam am na éducation bu baax def na ci moom éducation bu baax. amul xelu nàngam. mais xam nga xam nga euh, maman temps yi dama gis euh, dañu dañuy remarquer sax parce que euh, dañuy gis à chaque fois que jamono ji famille yi ci boppam mhm. kër yi ñoom ci boppam ñoo nangootul éduquer seeni doom mhm. ndaxte damay joxe exemple tey boo gisee benn xale bu ndaw muy dox ci mbedd mi ah. da nga naan kii ana yaayam Mm-hmm. parce que euh, le fait que tey nga bàyyi xale bu ndaw muy taxawaalu ci mbedd sans pour autant que yow nga soucié wu que ne am na sama benn doom am na sama doom bu nekk ci biti sans pour autant nga observé ko lu dul avec les réseaux sociaux da dugg ci kër nga gis que ne yaay ji mu ngi ci réseaux sociaux yi mm-hmm. pap ji la même chose raq yeeg doom yi ku nekk mu ngi mi ngi ci sa téléphone occupé say téléphone wa ilaa am ñoo xam ne seen i parents dañuy xëy liggéeyi mm-hmm. duñ tal seen i doom seen i occuper euh, famille bi occuper doom yi occuper njaboot ji et tout est-ce que genre yooyu noonu dinañ mën a am éducation ba mën a aussi tamit ju euh, yor seeni responsabilité boobu parce que nit ku nekk euh, parfois dama na dañuy gis ñu naan ñiy def lii soo sont inconscients mais je me dis que ne peut-être ñoom dañoo xamul mhm. am na ñoo xam ne dañu naan il faut ma dem expérience laay laay xooli wala gis naa sama morom am na ñoo xam ne royukaay moo leen ciy dugal gis naa sama morom mi ngi def lii man tamit il faut ma def la même chose tamit euh, jotul ñu conscientiser waat nit ñi bu baax a baax a baax surtout du ma ne sax ci parents yi parce que parent yi ñu ngi def seen devoir euh, mhm. par rapport ak l'éducation de leurs enfants mais euh, au moins ñu leen di conscientiser ci école yi wala ila ci endroits yi wala fépp fu ñu munti di dem ñu leen di conscientiser par rapport à ça voilà Sali euh, loolu euh, très bonne question. Mm parce que boo xoolee comme li nga wax léegi parents yi amatuñu jot bu bari. Mm-hmm. ndax boo xoolee papa ji mi ngi xëy liggéeyi yaay ji mi ngi dooleem parce que mm-hmm. euh, euh, occupation yi ñoo ñoo ñoo occupé yi léegi daal soxla yi ñoo bari tamit. Mm, bu fekkee yaa ngi yor sa doom. bàyyi ko ak jànq bi ci kër gi. Euh, est-ce que jànq bi éducation bi mu am. bu ko defee ci sa doom ji nga bàyyi sa kër gi. Mm-hmm. est-ce que dina yam ak yow ak sa jikko. Mm-hmm. tamit euh, am na xale yoo xam ni même seen parents yi am nañ seen seen seen jot ñi ngi leen toppatoo ñi ngi wax ñi ngi jubbanti ñi ngi leen di xelal toujours ñi ngi leen di yedd. Mm-hmm. mais comme ni nga ko waxee daf bu ñu génnee seen yeneen xarit yi ñoo def leneen ci seen bopp. loo xam ni tey buñ ko wala wala ñu leen di jay non essayer lii dara du la ci fekk noo defal lii dara du la ci fekk. Mm-hmm. ndax boo xoolee ci euh, euh, par exemple le motif bi xam nga ni tey xale boobu jël paaka di ko dugal euh, ci awraam. ñu mm-hmm. baal ma ci kàddu gi. Mm-hmm. waaye noonu noonu parce que noonu lañ ko gisee. noonu lañ ko gisee ah? kooku tey dalay leer ni tey boo ko laajoon tey du la ni lii du sama xelu bopp. dañ ko ko xelal. te kooku xelal ko influence voilà. ma ngay def lu ko raw xëy na moom daf ko daf daf ko ñamalagum ci étape boobu rek wa ilaa sax ka ko koy xelal moom sax du ci du ko def parce que yaa a des yoo xam ne mhm. euh, man euh, peut-être man xale laa mais euh, am naa ñoo xam ne gis naa ne damay am damay am àndandoo. Mhm. damay am ñoo xam ne damay ànd ak ñoom. am na mhm. ñoo xam dañ may dañ lay conseiller lu baax. am na ñoo xam ne dañ lay conseiller lu bon alors que ñoom lu bon liñ lay considérer liñ liñ lay conseiller ñu liñ lay conseiller ñoom si boppam duñ ko def. dañ la naan voilà defal lii man damay def lii man nii laa mel wala nii ak nii ak nii alors que moom li muy wax ci moom nekkul ci moom léegi yow bu nekkee yow da nga naïf léegi ok comme que man sama diw euh, kii la ma sama iPhone bi mu am ndekete yow nee na ci xale yu góor yi la ko jëlee nii la ko mhm. defee nii la ko mhm. xaaral man tamit ma def laa même chose mhm. léegi euh, man je me suis dit que ne après damay xool tous les moyens sont bons parce que da ngay gis ne euh, surtout boo tasee góor gu bon ñu ne tous les moyens sont boo góor woo proposé la loo xam ne yow peut-être da naan ok sama xarit bi kon lii la loon ma wax donc xaaral ma foncer. Mm-hmm. sans pour autant nga réfléchir par rapport mm-hmm. euh, donc c'est c'est boo xam ne euh, dafa dafa xaw a doy waar daal <laughs> moi. non ma chérie doy waar ak yam ci dafa dafa <laughs> dafa dafa yéeme. dafa yéeme dafa yéeme dafa euh, comme li nga wax noonu. Mm-hmm. tey di nga gis sa sa sa xarit boo xam ni mën na la sax soxore. influencé la di la dugal daan ni la moom yow daal gis nga man lii ak lii moom laay def te gis nga dara fekkuma ci defal lii wala mu ne la moom yow sa techno bii nga yor doo am ci iPhone yu baax yi yu baax man gis nga nii laa def da xool góor ñu baax ñi mm-hmm. nangam nangam nga daal di gàtt xel euh, euh, yor yor yor xolu xelu lëg mm-hmm. macha allah daal di ci daal di ci dugg leneen fekk la ci mm-hmm. mu toog ni la ñaw fekk moom ca lam la dugal soxore na la mm-hmm. iñaane na la wala mu teg la bët mm-hmm. mm, sali daal euh, ak suñu doom yi daal euh, yàlla rek mooy sàmm vraiment yàlla rek mooy sàmm mm-hmm. yàlla mooy sàmm lépp kenn mënu koo wax mais daal xam naa ni daal euh, ci lu ah buñ ci jógul dina weesu dayo yàqante bi maman yàqante bi ma gis jamono ji ci réew mi doon na loo xam ni lu critique la te war nañ cee ba war nañ cee jokk ndaxte mm-hmm. euh, bu njëkk peut-être réseaux sociaux amutoon peut-être téléphone amutoon yàqante bi bëriwutoon mais léegi da gis que ne képp ku am mbootu jàmbur da nga koy euh, koy teg ci table bi euh, teg ko ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi ndaxte moom mooy moyen bi gën a gaaw mhm. euh, pour nga yàq nit alors que ne nit kooku peut-être aussi tamit mérité wul loolu parce que xam nañu ne bu baax que ne nit du filmer boppam ba pare jël ko di ko dugal ci réseaux sociaux à fois nit a koy jël def ko dugal ko ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi donc mu doon loo xam ne doon na loo xam ne lu lu lu doy waar la yàqante bi ñuy gis jamono ji euh, ci ci réew mi maman. waaw euh, Sali loolu tam lu lu am solo la. Mhm. parce que tey Sali dina gis euh, maman Maguette. Mhm. xëy na moom moo gën a jekk maman Maguette. Mhm. ëpp ko daraja. dem si sax ba ëpp ko succès. macha allah mais xëy na am na lu tuuti rek loo xam ne maman Maguette ëppale na ko. ëppale na ko te moom maman Maguette sax du ko xam. mais Sali teg na ci bëtam daan ni maman Maguette mii daal foog ma xam ku ko xam pour mën koo yàq. mais dina jaral Sali nag xoola dakee sa su bu bëri dina jaral Sali sax moom ci boppam en personne na sacrifier boppam. xam nga fi may waxee ak yow. bu baax euh, euh, parce que nag man su may wax borom noppi garmi laay mm-hmm. waxal. bu baax te xam naa ne suñu auditeurs yi ñuy seetaan. Mm-hmm. yor nañ ay noppi garmi. fa mm-hmm. tubaarikàlla jaral sari nag mu sacrifier sax boppam pour moom na am rek lu mu yàqee. lu mu yàqee mm, fa tubaarikàlla euh, fekk mu maa màgget loolu sali gis ci moom ba ñeewe ko ko moom amaana xëy na gisu ko. amaana sax yëgu ko. waaw mais eh, eh, xëy na ko Sali am na benn benn eh, jalousie bi ci moom. ba ne lii daal naa ko def ba nga xam ne suuf si maman Maguette bi dina dina dina wàññeeku. wala wala tey dinaa teg maman Maguette benn stress boo xam ni lii mu doon def wala lii nu ko nit nawee. dana deñ dootu ko am. waaw ñuy ñuy muslu ci rek ci yàqkat. vraiment te xam ni Sénégal léegi. buñ la gisalul lu lu bon sax. <laughs> dañ la koy wutal dañ la koy créer dañ la koy créer <laughs> loolu nag Sali euh, ñu ci ñu ciy wax nii rek ñi nga xam ne ñi ngi jug di ko def hmm, di yàq deru nit. <laughs> Euh, de grâce. ñu ngi la koy ñu ngi leen koy ñaan ñu ñu ñu bàyyi quoi. parce que loolu loolu loolu amul sens. amul sens ah parce que foo gis kuy yàq nit ala kulli àll yow bis sa bis dina ñëw. bien te bu boobaa di nga sentir la nga doon def diw. Ah, ba ko def metti na loolu mm-hmm. waaw ñuy ñu ñu ñu ñu ñaan rek ñu koy def daal euh, ñu bàyyi daal. ñu bàyyi parce que amul amul njëriñ. amul njëriñ amul njëriñ amul njëriñ maman. Euh, waaye li ñu naan euh, li li li duuf si si nag bi xajul si cin bi comme ni ko olof Ndiaye di waxee. Uh-huh. mais comme ni ñu koy waxee ni ñu leen koy promettre yéen waa 2A TV à chaque fois donc noonu lañ leen koy daal di defalee donc ñu lii rek lañ leen indiloon. tey ci li nga xam ne événement yi xewoon na ci 15 août bi ak le motif yi. dileen euh, jox dig daje beneen yoon waaye di bàyyi aussi tamit sunu maman euh, Maguette euh, mu daal di tàggatoog mbokk internet yi. waaw euh, Sali euh, ginnaaw bu ma la remercier ci invitation bi. Mhm. di ci kontaan lool nag fa tubaarikàlla macha allah euh, di sant suñu auditeurs yi. Mhm. auditeurs yi 2A TV yi. di leen wax ni ñun ak yéen ak ci kanam fa tubaarikàlla macha allah. Mhm. dina ñëw ak yéen ci émission yu bees taq man ak sama chéri Sali. incha allah yoo xam ni fa tubaarikàlla boobaa li ngeen namm mooy. Euh, yéex a gis émission bi. Mm-hmm. <laughs> merci beaucoup merci voilà mbokk internet yi lii leen leen indiloon tey donc comme niñ leen ko waxee rek ni ngay gis ni àdduna amul solo te yàqante bi jarul amul benn njëriñ ndaxte temps bi ngay def di yàq dooma aadama boo ko defoon ci sa bopp dina am loo xam ne dina la mën a apporter lu baax donc jàmm rek mooy li gën te aussi tamit def lu baax mooy li nga xam ne rek moom moo lay fay lu baax aussi tamit muy si yow muy aussi. fii sa entourage euh, donc nañ leen xoolaat bu baax euh, jëfin yeeg melikaan yi aussi tamit di ñaan Sénégal yàlla defal ñu jàmm euh, donc mbokk internet yi ñu ngi leen di remercier di leen béggee di leen wax aussi tamit di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah rabbi ndaa jàngeen jëf